sëriñ bi si ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar Sénégal pour yow yóbbante waa àdduna bi pour yow yóbbante waa Europe pour yow ah, ba ñu commencé liggéey bi ba tey ñu ngi dajeek nit ñi dama dem Europe ma gis fa lu suñu mbokk yi ci jasporaa bi ñépp taxaw bi ñu fa nekkee kenn yendalul kenn fanaanu ñépp taxaw gunge ñu ci mission bi di la wax ne ñoom pare nañ pour candidat du peuple ñu gunge ko ànd ak moom ba biir palais incha allah ah ñu ñëw it dugg biir Sénégal semaine bi paase ñu nekkal sonn nañ ko sunu mbokk yi réew sonn nañu amuñu ndox amuñu courant ah ñu wax ñu kontaan bi nga xam ne am nañ ko ci sunu taxawaay ci fi nga xam ne fa la ñu bëgg a yóbbu Sénégal ci li nga xam ne recevoir ñu ci mission bi wax ñu seen taxawaay wax ñu yaakaar bi nga xam ni moom la ñu am war nañu mën a taxawu réew mi war nañu mën a tegaat réew mi ci yoon boo xam ne sénégalais bu nekk ak foo mën a nekk dinga ci gis sa bopp ñu la koy sante di la ko gërëme bu ma bëgg a wax ak yéen sëriñ bi warul toog sax ñuy politik mais dafa jaadu taxawaay dafa jot takku jot na sunu réew suñu doomu waa réew sonn nañ dañoo am devoir ak responsabilité devant l'histoire te dama koy wax tout le temps ku nekk jóg takku taxaw ba sunu réew ñu jotoo gërëm ñépp nag ñi ma àndal di liggéey amuñu moroom du ñu yend du ñu añ du ñu naan mais kenn jàmbatu ndax mission bi nga xam ne bu am solo la te ñu koy taxawoo waa Sénégal ah di wax rek si yaakaar nañ sa ñaan bu baax a baax a baax fu ñu dem kilifa gu ne seeti nañ la ci yéen la am yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu incha allah ah di wax duma guddal di la sant bu baax ah di la amatul toogaay jeex na noppalu jeex na ku mën a jàpp ku mën a taxaw ku mën a dem seeti nit waxtaan ak moom nga seeti ñi nga war a seeti waxtaan ak ñoom benn option rek lañu ñu am soit on gagne